nataal ñaar fukk ak ñaar bi Yeesu nekkee ci kaw suuf wax na ci ñaari yoon yoon bu yaatu bi ak bu xat bi ndaxte ñun ñépp ci yoon bu yaatu bi lañuy juddoo yoon bu yaatu la te terewul dara te ci biir yoon boobu am nañ ci ay moroom yu bare ndaxte yoon boobu dinañ ci am ay nawle ay xarit lépp a ngi ci biir te lu bon rekk ka ci nekk ndaxte terewul dara dara aayewuñ la ko ci yoonu seytaane ndax xam nga ko seytaane mooy noonu yàlla doon na tamit sa noon yaa ngi defal seytaane bànneex saa boo defee lu bon te lu ñaaw loolu ngay def lu neexul yàlla la yoon bu yaatu boobu du yoon bu baax bu ñu wara a topp